bokki talibé yi jotaay buñu ñu miin ngi ni ñabotu mam Cheikh rahim Fall gep tew ni fenn fu nek kenn bayiko fa délégation bayiko daru khafour ci ndigalul seri azan Fall mom seigne mudou mam seigne abdullah rakam tewal ko fi daayira Murid seigne Mudu Fall tew fi tewal fi daayira bépp ndigal li bayiko ci khalif général de Murid Sering Mountakha mbake ñëpp di ko ñaanal mu yagg fi te wér ñew ci sëriñ Amdi Fall Mudu Mbenda mi nga xamni mo jité jiite kër Cheikh ibrahim Fall tay mu jallale ko ci ay rakam wa kër sëriñ mbake Fall sëriñ Cheikh Cokke Fall ak ay rakam yep jël ndigal lolu nak tek ko ci loxol seen dom ju ñu wolu ci bés bi te doy loko mu yagg ko and ak ñom mu di Gunda Fall mi fi teewal sering bajuru Fall alquran yalla na fi yagg te wér kaddu Yunak nak mo waral ndigal li ñu wajjal ni ko waxe muy ñaar fukki fa nak ben ci wéru tubab fukki fa nak juroom ñaar ci wéru gàmmo moy bes bi Serigne Touba won mam Cheikh ibrahim Fall ci daru salam at mu jot ñu di wajjal diko di diko dundal lolu nak moo tax Serigne Gunda Fall jël ndigal li tek ko ci loxol ay rakam ay jëwriñam Serigne basirou Fall cokke mi nga xamne ku yagg dox ci bes bi la ñu tan délégation bo xamné ñoo ñu xamal programme bu bis bi ak waajtaay wi. ñi ngi nuyu bokk ni tewlu yépp ci turu Serigne Amdi Fall mum Serigne Modou Mbenda ñu ñaan yalla sunu borom yagal ak dundam te wéral ay cëram ba yéene jëm am ci liggéey bi mu taw sunu borom defal ko ci lu kawé njortam di jotali am nuyoo bu bayiko ci mom jëm ci mbollem ñi nga xam ñom la jaboote mu njabootug maam Cheikh ibrahim Fall. di wax nak ci turu Serigne Amdi Fall mu jëm si bis bi te xamal ni bëkk dem rek sëriñ Ngunda mi and nak mboolem sering sëriñ Mbacke Fall mboolem njaboot gi nga ne nyobok ci si kër sëriñ Mbacke Fall Xëri job and ak mboolem njabootuk maam Cheikh ibrahim Fall ñu ñëw si jëwriñu Cheikh Fall ji di sëriñam di Fall si turu sëriñ Cheikh Fall ciokki mi nga xam ne jëwriñu kër gi. nanu ko baaxoo wona def jëf lu mu rafet rafet ak lu mu baax baax yoon wi ñu ne mom nako ndigal lay tay ñu aw fañ daa aw ñëw laaj ndigal nako seen wajuru da sëriñ bi wax ne bis bi moom moo si joxe ndigal te moo sa jiitu wax na ne lépp luñ si def moom lañ ko defal ndax lépp moom la war sëriñ Ngonda mii nga xam ne moom la ko sëriñ Cheikh teg si loxoom mu di ko taxawu nee na loolu noonu ndigalam la te taw fii tawféexam la bànnee xam la te mi ngi koy ñaanal liggéey bi yàlla na woyof toyu si moom. bis bi nag ñun ñëpp xam nañ ko naaw ba nu si amee ndigal li si des mooy taxawu rek ndax Baye Fall ndigal rek la sëriñ Basiirou Fall alxuraan mi ko sunu borom jagleeloon kenn ku ne xamoon na yitte jëm amoon si maam Cheikh Ibrahima Fall bis bii daawul bëgg nu tudd aw turam dadaa wax ne bu si kenn tudd sama tur na nuy tudd maam Cheikh Ibrahima Fall. mësta soxla si baas ak si waxtaan ñu tudd sëriñ Basiirou Fall ndax kennal gum kennaloon Cheikh Rafal te xam ne liggéey bi Cheikh Rafal ko moom waaye sëriñ Gunda Fall euh, ndigal lii mu am kenn ku ne xam na ni delloowaat na liggéey bi foofee mu newoon ndax jataay bii day boo xoolee di nga fi gis buntu kër yëpp. kër gu ne am na ko fa bàyyi koo ñëw si ndigalul ka nga xam ne mooy jëwriñu kër ga loolu yi nag mooy wane ni bis bi bisub Cheikh Rafal la te lépp Cheikh Rafal la te delloo nañ ko lépp sëriñ bi nag mi ngi digle képp ku yaakaar maam Cheikh ma Fall mi ngi lay woo si bis bi nga ñëw ànd ak sëriñ Gunda Fall ak njabootu sëriñ Mbakke Fall gépp ngeen taxawu bis bi nanga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee woon. te xam ne bisub maam Cheikh Raye Fall te bis gënu koo rëy bis gënu koo kawe ndax bisub ngërëm la Cheikh Raye Fall di màggal la ñuy màggal te ngërëm li lépp lu nu am rek ngërëm li moo nu ko may ñuy ñaan yàlla nañ ci tàbbi ak jàmm liñ ciy sàkku lépp nu am ko. sëriñ bi nee na mi ngi ñaanal sëriñ Cheikh Fall Cokke yàlla suñ borom gën ko fee yàggal wéral ko di ñaanal sëriñ Ngunda mii nga xam ne moo nekk si kanamu njaboot gi. tey seereel ni moom sant na ko gërëm na ko ndax lépp lu mu ko digaloon mi ngi si. ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit leen siyaare bu baax te xam ne tey jii bu nekkee ci pàkk bi xel yëpp daan dem ci jataay bi ñu fi daan def muy jataay bi nga xamante ne ci la Serigne Touba gërëme maam Cheikh Ibrahima Fall muy bisum ma nga amee ca Darou Salaam di fukki fan ak juróom-ñaar Serigne Bassirou Fall alxuraan doon jëwriñ ji daan ko taxawee. ñu ngi ko tàmbaloon nag ci ndigalul sëñ Mourou Aminta Fall mboolem xalifa maam Cheikh Fall bu fi nekkit bis bi sa loxo lay ne su jub see ñoo yëkkat dara mbaa ñu wax dara danañ ñëw ci yow laaj la ndigal sëriñ bi nag nee na mi ngi ciy woo mboolem njabootu Serigne Touba gépp bàyyiwul kenn noonu mu ci woowee njabootu Serigne Touba gi la ciy woote seex si bàyyiwul kenn képp koo xam daal bokkoon nga ak euh, maam Cheikh Rafal ci ëttu di di liggéeyal Serigne Touba sëñ bi nee na ngi lay woo ci bis noonu la ciy woote njabootu maam Cheikh Rafal woote nag day aada waaye bis bi moom njabootu Cheikh gépp ko seq ndax dañ ko doon defee Tiwaawoon ci kër booba képp ku ñëw Tiwaawoon euh, gan ngay doon waaye nag sëñ Bass mi nga xam ne moom lañ doon liggéeyal moo jëkk wax ci xelam ni bis bi kat damaa jàpp ne dañ ko war a yóbbu ci pincum Serafal mais nga xam ni maam Serafal benn pàkk bu mag la am fii njabootu Serafal gépp nekk fi te euh, te bés bi euh, liggéey bu ñu liggéey liggéeyal waaye képp koo xamante ne ab Baay Faal nga maa ngi jullit ci nga bokk gi nag ni ko sëñ bi téyee di ci sonn di ko màggal ni la ko ñëpp màggale képp koo xam daal yaa ngi wax asadu an laa ilaaha illallaah sëriñ baa ngi woo sëriñ baa ngi woo ci bis bi ñëw ànd ko dundal bis bi nag li ma waxoon rek bisu ngërëm la ngërëmal sëñ Tuuba ngërëmal maam Serafal loole nag mu jël ci sëriñ Tuuba motax tay fu yoonu ag mu àgg kon nak nañ xamni ngeureumal mam serafal lolé Fall ñu ñaan yalla suñu borom ñu ñëpp ñu tàbb ci am ngeureumal yalla ak mam serafal bis mo bisub jang alquran ak tuddu yalla rek nañ ko daan def rek lañ koy defé mbolam luñu daan waaj dañ ko ci wat serign ben mi ngi soñé ndekki ndax euh, serign bi kat dafa am lu mu baaxoo di def bu ne suba la dafa am berne yu mu daan def bernde yooyu li mu wax moy li mu jublu de moy ñi nga xamanteni dañu neewon ci pakku euh, serign Touba bi nek fa ak maam doon liggéey suma sañon bu ne bis bi suba la ñom dañ xam ni ngërëm seen ngërëmal waajate ji la woon tax bi dina nabi ci ay xéwal ak bernde di def lu mat ak lu mënul di yobbu yóbbu ci njabootu euh, seex si nga xamanteni ni neewon nekkon neon ak maam Serigne Fall ci keur Serigne Touba ba ci mboolem Serigne Touba ak daari ak daari fepp la ko bi yobbu ginaaw lool nak sëriñ bi neena mi ngi ci wo president Bassirou fay di ci wo premier ministre Ousmane Sonko di ci wo ministre de l'intérieur gouverneur Diourbel Euh, préfet bu Mbàkke sous préfet bu Ndaam ak président Abdou Lahad Ka mi nga xamante ni moom la sëriñ bi denk dëkk bi ñu ngi woo ci bis bi. Euh, sëñ Cheikh Torot sëñ bi nee na mi ngi koy yëgal bis bi moom it mu doon ndawam ci diggante meeg administration bi moom ndax bis bi dama leen waxoon rek bis bisub lislaam bisub jullit yëpp kon daal sëriñ bi nee na mi ngi woo ñëpp. may xamal daayira yi na leen cërub Seera Faal bi ñu yëkkati ko joxoon ko sëriñ Basiiru sunu waajur di sunu sëriñ dey bis bi yàqu ko doko defar ba kenn ku nek man na jarño bis bi nek fi mu nek ndax dafa fexen bi nga xamanteni ne mu Modou defal Fall yëkkati ko ko ci loxom dafa fexé ba mbollem ñim sekkal kër gi muy sérafal kenn ku ne man gis bopam ci jër bi ba bis ni tay kenn ku mu don ku ne wo nga tabbi ci bis ba feñ ci ndax xam ne ngërëmal yàllaa ci waye bang ci touba nga ci ak sérafal min ci liggéeyal nun ñi waye nona nan lay démé sëriñ Basiru daf daan wax nenu bis bi de li muy rëy daa am lu ko ci gën a yitteel nga xam ne buñ doon seet farataay bis bi moom lay doon ñu ne ko loola lan la faal mu ne ñam yii nga xëyee dañ koy defar ba mel ni mu war a mel ñu delloo ko ci njabootu sëñ Tuubaa gi ak seex yi nga xam dañoo nekkan ci képpaaru sëñ Tuubaa bokk nu ñuy liggéeye di leen xamal ne ne jaajëf ji sëñ tubaa joxoon sunu maam kan ñëwaat na nee na loolu de bokk na ci li ko gën a yitteel ci bis bi. léegi nag kon yéen daayira yi li nga xamante ne moom la jox sëñ bés ba si bis bii na teel a ñëw ndax sëñ bi ne bëggumaa yàq fi kenn waa kër sëñ Basiir Faal Xorotam xam naa ci leen ndax mbir mi noo koy bokk di liggéey taalib bu nekk day jéem a indi aw nag ngir bëggug sëñ bi am kon nag nun bu ñu yoree ay daayira di ci liggéey sëñ Tuubaa di ci liggéey Seera Faal te sëriñ bi yore noonu bis bi te jaajëf ji génn woon ci sëñ Touba ñëw ci Seera te nu bëgg a jariñoo jaajëf jooju kon daayira boo xam ne am nga loo bëgg a liggéey la Seera Fall na ko jox sëriñ Basiru mi mu doxal la ko ci bis ndax du yàq jëfi kenn noo ngi woo réew mi di woo bitim réew képp ko xay yor nga ab daayira boo xamante ne daal da nga cay xëyal sëriñ Touba di ci gontul Seera Fall bisub Seera Fall a ngi boo xamante ni lii la nga ca amoon war naa teew ci bis bi. ginnaaw moom ndigal la ko ñoroon koo xam ni kii dafa bokk ci Cheikh Ibra te diggu ci Bam waxe batam duma soxat garab ca car ya ci dat bi lay soxat ndax reen ye am solo lolo wax bu yatu la duma soxat garab ci ay car dama koy soxat ci dat bi ba magge lepp man lepp nat Cheikh Bassirou Fall alxuraan non la def Cheikh mu damin tafal mi nekk ñem ci lañu fekke ko ni mu ko da wax ne bara mané ko fal mu ne ñew leen wañat basir ñewat na loolu suñu Cheikh Amadou Mat Fall Fall du seet teewe na ci ba tey wax na ba tey it ni xari sëriñ Basiru ñëw na sëñ Baara ma ne ko Fall mu ne dem leen seet du ngeen ci gis bu tuut du ngeen gis bu yooy waaye nit ko baax na bu fekkee da ngaa am ku la jiite te la jiite ñëpp weg ko bu la wegee am nga weg waay Cheikh Basiru Fall yàlla na ko sunu borom dolli leer. kaddu la yoo xam ni li ko tax a jóg mooy sëti sëti sëriñ Mbacke Fall li nga xamante ni bii ñoo baaxoo bu ne suba la guddi Cheikh Ibra gi ñu am conférence bo xamni at mu nek dafa am kun koy jaglél ren nak ñu dello ko borom muy sëñ Modou Moustapha Fall ndax ko ne xamna ni sëriñ Modou Moustapha Fall 1930 bi fi Cheikh ibrahim Fall bayiko ba 1950 mo wuti Cheikh ibrahim Fall bot njabot Cheikh Fall gépp defaraat yoon wi wat ñëpp bis bi di bisam at mu nek ñu baax ko am kun koy kun koy jalé waaye ren nag dañ koo delluwaat borom mi sëñ bu nu saafaal liñ ci jublu nag mooy fas yéene waxtaane ay jikkoom waxtaane waat aw meloom xamle kan mooy sëñ Modou Moustapha Fall ni nga xam ni ni la wuute woon Cheikh Ibrahima Fall boot njabot Cheikh Fall gépp ànd ak ñoom tegaat yoon yi fi mu nekkoon ba yoon yu aksi fi mu ñuy woo mbooleem njabot sëñ Fall gépp di leen xam bis bi kat dañ ko daragaal sëñ Fall waye bis bi mom bis bi gudi Cheikh rek mom gudi seigne Modou Moussa Fall la wo mbollem mbooleem Cheikh ibrahim Fall gep ak sëti Cheikh ibrahim Fall yep kaddu yi nak kaddu yi soññee la rek ak fatilé bis bi nga xamantene ci la ku tedd ak Cheikh ibrahim Fall lak won ngërëm ci sangam ba Cheikh mom Bamba khadim rasoul muy bisum ngërëm seigne Bass nak da da wax ni bis bi bisu paju aya la kon ku bëgg sa aja faju na nga ñew diko ci sakku si te it ku ci def saw ñak dang bu yek nga sëriñ meeg di soññ mboolem bokki taalibe yi nag rawatina daayira yi daayira yi nag ñu ngi ciy jiital daayira yi nga xamante ni ñoo ne ci kër gi te sëriñ góor a mbooj ak sëriñ Issa An di jëwri ni nga xamante ni ñoo jiite mboolem daayira yi nekk Touba ak li ko wër di tudd sëriñ Cheikh Diop ca Ndakaaru ak mboolem daayira yi nekk Ndakaaru ak taalibe yi fa nekk yëpp sëriñ Ibrahima Dia ak sëñ Baara Mbuuf Diop ak mboolem dayre yi nekk ci diaspora bi sëriñ baa ngi leen di soññi baax a baax di soññi mboolem daayira yi nekk Kajoor ak Njaamur ak Bawol fub daayira ne sëriñ baa ngi lay soññi sëriñ bi itam di soññi dongay tarbiya yi dongay tarbiya yi nga xamante ne ñoo àndoon ak sëriñ Bassirou Fall alxuraan di ko liggéeyal bis bi ba ma ko tàmbalee ñu daa ànd ak moom ci Tiwaawan di jiitu ji di baas di jiitu di ko xàllal ba tey jii ñu ànd kook moom sëriñ baa ngi soññi dong yi di jiital sëñ Mbay Juuf seen jëwrin ak sëñ Siidi Siis foofu dongab tarbiya nekk sëriñ baa ngi lay soññi mi ngi lay woo di la ko fàttali di soññ nag suñ mbokki daara alxuraan yi ku xam sëñ Bassirou Fall alxuraan xam kook alxuraan bis bii bu mosaan a jub si weeru teru day soññi mboolem daara yi alxuraan yi nekk fii ci dëkk bii di Touba ak njaareem ak daarul muxti ak mboolem daara yi nekk ci yoonu yëpp lépp waaye man ci jàng alxuraan def ko addee baabul muridiina Cheikh Ibrahima Fall ku mën a jàng alxuraan na ko def def ko addee Cheikh Ibrahima ku mën a jàngalu alxuraan yi na nga ko jàngalu alxuraan lépp nag ñu def ko addee maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridiina ba nga xamante ni bu mosaana jub si mi ngi ciy soññi mboolem daayira yëpp nag rawatina sëñ Abdou Dieng ca Njaaree moo daa soññi mboolem daay daaray alxuraan yi nekk foofu yëpp sëñ baa ngi fàttali dongoy alxuraan yëpp di soññ itam mboolem kuréeli xasida yi muy kuréelu fulkul masoon ak mboolem kuréel gi nga xamante ni dañuy durus ci dëkk bi ak ñi nga xamante ni dañuy rajo saka yëkkat ñëpp sëñ baa ngi leen di soññ mi ngi leen di fàttali bis bi soo xamante ne ni suba la bi sët yi def ñu ngi ko tudde Cheikh Mourou Safal sëñ Bassirou waa alxuraan nag nee na man mii de saa baay sëñ Mourou Safal la ma joxoon netti li ma lu bari ci diggam ak moom xam naa nag du fi xaj bu loolu jàllee su ñu xëyee danañ xëy jàng alxuraan ak xasida dañuy yendoo jàng alxuraan di jàng te it bernde yi tam mooy jiitu bernde yi sëriñ bi togg ci suba gi ñu yóbbu ko ci mboolem kër njabootu sëñ Tuubaa geeg si bu jàllee dañuy yendu fii jàng ak xasida ba jant bi so looloo ñu ngi koy soññ ñëpp di ko fàttali ñëpp ñu waajal ko booleeg di fi waxtaane Cheikh rek ak bernde yi ak dalal gan ñeeg tere leen guddi gi bu sori cérémonie bi jàllee danañ fi fanaano baatub laa ilaha illallah muy sikkurulaay sëriñ Cheikh Ndoye koy jiite ak sëñ Maxtaar Ñang ak mboolem kuréeli si kër yëpp sëñ baa ngi leen koy soññ mi ngi leen koy fàttali ñu waajal ko comme lañ ko daan waajal muy bés bu mag bi nga xam ne moom la ñuy waajal mu war a doon samedi fukki fan ak juróom-ñaar ci gàmmu wi wala dëppoog ñaar fukki fan benn ci weeru septembre fii ci euh, kër maam Cheikh Ibrahima Fall Touba Jannatul Mahwa sëriñ bi di ci woo ñëpp baatum ñëpp bàyyiwul kenn baatu fépp bàyyiwul fenn mi ngi woo fépp di yëgal ñëpp di rawatina nag cheikh yi nga xam ne ñoo ànd nag ci maam Cheikh Ibrahima Fall ci kër sëriñ Touba bàyyiwuñu benn buntu kërub cheikh bu ànd nag maam Cheikh Ibrahima Fall rawatina nag. waa kër maam Mor Diarra Borom Saam waa kër maam Thierno Ibra Fati waa kër sëñ Mun Ndumbe Xabaan waa kër sëñ Daaru Ousseyn Ndiaye ak waa kër sëriñ Insa Jenn sëriñ bi nee na mi ngi soññu ñëpp di woo ñëpp di ñaan ku fi teew yàlla faj sa aajo ci barke sëriñ Touba. nu di leen bés bi samedi 21 septembre. 2024 fi ci jantul Mahwa keur mam Cheikh ibrahim Fall Babul Mouridina mu tambe won ak fukk fan ak juróom-ñaar ci wéru Gammo borom ngeureum nak kuy sakku ngeureum da ngay dem ci bésam lo ca laal am ca ngërëm wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh La ilaha 啦啦啦！